il y a plus grave Pape. oui Pape ñun ñoy ay doomi Sénégal. Mhm. télévision bi télévision wa Sénégal la. Mhm. ki ko coupé doomu Sénégal la. Mhm. gouvernement bi gouvernement wu Sénégal mais xam nga kan moo ñu jox les raisons pour lesquelles ñu couper ko. kan la wa Canal Plus. xala kay déet. barke Serigne Touba. parce que Cheikh Niass nga may dégg directeur du Canal Plus le bind ne ko man dama am contrat ak yow pour ngay diffuser Walfadjri ci sa bouquet soko couper coupé ma wax lu lu tax comme nous seen réew dañuy respecter texte mu il faut nga saisir mu officiellement Nous bind officiellement mu jox ñu officiellement li nga xam ne lañ ko wax ne ko na coupé ci canal donc nous sommes yooyu. te ko sant Moussa Bokar Thiam Nous ko sant ñoom tubaab yooyu seen télévision boobu Canal Plus moom moo ñu xamal lan moo tax ñun Sénégal yi du juddoo diggante ak Bawol ak lan télévision